الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
na ngeen jaamu seen borom te na ngeen ko sujjóotal.
mu ne loolu jaaduwut na ngeen jaamu seen borom te na ngeen ko sujjootal
ma ne
bàyyi nag moom mu wax ne ñu ngi dellu siyaat ci ruuj mi ngi dellu si at ak yéen ci ruuj
pour sakku dund ak boroo gi pour ñu ruuj sakku ci dundam roxo gi loolu dafa laaj ñu liggéey ci jëmm ji loolu dafa laaj ñu liggéey ci jëmm ji ñu dundale ci suñu li ñu yàlla jox ñu dundale ci li ñu yàlla jox moo tax fu yàlla wax moo tax fépp fu yàlla wax jihaat jiyaat ne ci seen bakkan ak ci seen alal dafay wax ne ci seeni bakkan ak seen alal dañuy jihaat ci ñun ci ñu yàlla mu ne ñu jiyaat ci ñun yàlla dañ leen jubale yoon wu jëm si ci suñ pay danañ leen jubale ci yoon wu jëm si ci suñ pays te maa ngi ànd ak ñi yéwénal te maa ngi ànd ak ñiy yéwénal nag ñi yéwénal ñooy ñuy jaamu yàlla mel ni ñu ngi koy gis ñii yéwénal yàlla mel ni ñu ngi koy gis wax na ne yàlla wax na ne
su ngeen lebalee yàlla bu ngeen lebalee yàlla lebal bu rafet lebal bu rafet fulal leen mu fulal leen ko xanaa bon xanaa kon bu fekkee gëm nañu alxuraan bu fekkee gëm nañ alxuraan lu waaye def lépp lu waay def ci alalam ci yàlla ci xalalam jëmee ko ci yàlla mu wóor ko ne yàlla dana ko fulal mu wóor ko ne lii muy jëf yàlla dana ko dubleel ci àdduna ak ci àllaaxira dubleel ko ko fii ci àddina dubleel ko ko ci àllaaxira gis nañ ko nag ci janoo gis na jar ci janoo képp kuñ ne moo gën a joxe képp ku ñu wax ne moo gën a doon ab joxe kat moo gën a bari xam ngeen ni moo gën a bari le
gis ngeen ñoo xam ne la ñu am gis ngeen ñoo xam ne la ñu am fagguteef lott na ci faggu fàggu teew lu lott na mboos ci faggul leen ko dañuy joxe rek yàlla di leen fulal ñoom dañuy joxe lañ yor yàlla fulal leen ko indi ko fa mu jógee bañu am lu ëpp bañ am loo
ah yonent na ne sallallahu alayhi wa sallam yonent wax na ne sallallahu alayhi wa sallam
jant du fenk jant du fenk mooy ñaari malaaka ngi ànd ak moom lu mooy ñaari malaayika ngi ànd ak moom kenn ngi ci ndeyjoor kenn ngi ci ndeyjooram ah aati munfiqan xalafan yàlla képp ku dundale alalam jox ko lu wuutu naan yàlla képp ku dundale alalam jox ko kuutal képp kuy kenn kay ma man malaaka ma mel na malaaka mi di wax ne te xaralam sànkal yow yàlla képp aati munfiqan xalafan aati munfiqan xalafan atee mun fi fan xalaf ji malaaka mi wax moo tax bi joxe kat moo tax ba joxe kat yàlla daf koy wutalal yàlla daf koy wuutalal wutal ga fay ñëw naa xalaf xalaf xalaf xalaf wuutal ga dafay ñëw di def xëlëf xëlëf fa mbaxe ko ngir ñaan ak malaaka moom ngir ñaan ak malaaka moomu
ah joxal ki nga xam ne joxal nag ki nga xam dafay bañ a joxe cak cànkute dafay bañ a joxe cànkute
ne nañ dërëm yi ñaar la rek ne nañ dërëm yi ñaar la benn baa ngi ci mbagg mi benn baa ngi ci tenqali benn baa ngi ci mbagg mi biyee ngi ci tënk li ci tenqali yaa ngi koy joxe rek bi ci mbagg mi ñëw bi ci tënk li boo koy joxe bi ci mbagg mi xaj si fi mu nekkoon
te loolu alxuraan wax nañu ko te loolu alxuraan wax nañu ko na benn wàllu yi boo xam ne am na nag benn wali yi boo xam ne ma ne woon ci àll rek di jaamu yàlla dafa nekkoon ca àll tunga ba di jaamu yàlla amul dara ci yóbbal xamul dara nag ci yóbbal waaye waaye nag toogee ba digg ba cëg jot bu toogee ba digg ba ca jot
rek yàlla wàcceel ko lu mu lekk yàlla dal koy wàccee lu mu lekk
lu lekk mu lekk ja jaamooti yàlla ba waxtu woowu ci ëllëg di jaamooti yàlla ba waxtu woowu ci ëllëg jëmmi bés nag jëmmi bés nag mu génn di faje aajo mu génn nag di faji haajoom
gis ab dinaar bu rot mu xor ko gis benn dinaar boo xam ne dafa rot mu sëgg for ko ci poosam def ko ci poosam nag toog ba añ jot toog baan jot añ bi daa ñëw ñëwul xam bi daa ñëw di ko jógee ci yàlla dikkut mu toog toog mu tooy ñëw mu toog toog di ko nekk xam bi tey ñëw mu ne yow sama borom mu ne yow suma borom bi mu ne ko alqi maa fil jaybi yaatika maa fil xaybi mu ne mu ko ne sànni li ci sa poos bi boo bëggee li ci peew yàlla mu ne ko sànni li ci sa poos bi nga dëxañ ko ci soo bëggee li ci peeb yàlla bi dikk loolu moo dëggal ne loolu kay moo dëggal ne jaam lu mu joxe jaam lu mu joxe yàlla daf ko koy wutal yàlla daf ko koy wutalal yonent na ne yonent wax na ne sallallahu alayhi wa sallam nit tooñ la nga ëpp ko doole nit tooñ la nga ëpp ko doole nga muñ bañ a fayu nga muñ nag yow bañ koo fayru du yokk lu mooy teraanga du yokk lu mooy teraanga dundale sa alal dundal sa alal du du du wàññi mukk du am wàññi mukk sa xam-xam
ñaari yëf yaari yëf nag dañoo wute lool dañoo wute lool riba riba ak sadaxe ak sadaxe sadax moom da ngay mel ni ngay wàññi sa alal di ko jox sadax moom day mel ni da ngaa wàññi sa alal di ko joxe loolu la yàlla wax ne fa yokk alal loolu la yàlla wax ne day yokk alal riba mooy leble benn fayeku riba nag moom mooy leble benn fayeku ñaar wala fayal ko ñaar wala fukk
loolu dafa mel ni fa yokk alal xam ngeen ne loolu moom dafa nitu luy yokk kooku yàlla ne day wàññi kooku nag yàlla wax nga ne ku ko def daf lay wàññi xeetal nag seetal nag yow def katab riba def katab riba lu mu ci yàgg-yàgg lu mu ca yàgg-yàgg du mel mukk ni sadaxekat ya du mel mukk ni sadaxakat yi ci bëri lee ci bari le ak barke de ak barkele
yàlla moom yëf yi saa ñu moom it nañ nekkal yàlla nangu mu moom ñu nañ nekkal yàlla nangu mu moom ñu nag ñu jox ko suñuy jëmm jox ko suñuy alal ñu jox ko suñuy jëmm jox ko suñuy alal jox ko suñuy doom jox ko suñuy doom kon mu nekkal ñu moom te moo gën suñ jëmm yi moo gën suñu alal yi moo gën suñu doom yi kon mu nekkal yu la moo gën suñ jëmm yi moo gën suñu alal yi moo gën it suñ doom yi kon ma jóob na ne bàyyi ne monsieur bu wax na ne sama nguur a ëpp nguuru yàlla suma nguur gi moo ëpp nguur ak yàlla gi ñu ne wax na musiba wax na kéem ñu ne ah monsieur bi wax na nag musiba ndax wax na kéemtaan mu ne ndax yonent waxut ne man kaana lillahi kaana laahu la mu ne ndax yonent bi waxul ne képp ku nekkal yàlla yàlla nekkal la ñu ne ah kay ñu ne ko ah naam moo ko wax mu ne boo nag yàlla ëpp nguur ak yàlla gi mu ne kon kay yàlla ëpp nguuram gi fuuf su fekkee yàlla nekkal na ma su fekkee ne bi ma nekkalee yàlla yàlla dal na may nekkal yàlla ëpp nguur ak yàlla xam gi ngeen ne yàlla moo ëpp nguuram nga loolu lu leer la loolu kay du ëpp kéemaan lu leer nañu la yàlla ëpp nguur ak yàlla gi yàlla ëpp nguur ak yàlla gi sakkal lenn nag ci nguur ak yàlla gi sakkal leen na nag ci nguur ak yàlla gi nañ nekkal yàlla yàlla mu rëy moomu nekkal ñu nañ nekkal yàlla yàlla mu rëy moomu nekkal ñu
ñu am texe ci àddina ak ci àllaaxira ñu am texe ci àddina am texe àllaaxira
yàlla nag li mu gën a bëgg ci jaam bi yàlla nag li mu gën a bëgg ci jaam bi mooy jaam bi gëm ko mooy jaam bi nga gëm
yàlla nga gëm yàlla bañ ko sakkal benn bokkaale bañ a sakkal yàlla benn bokkaale ñun ñëpp gëm nañ ne yàlla rek lañu war a jaamu amul bokkaale ñun ñëpp gëm nañ ne yàlla lañ war a jaamu xamut nag benn bokkaale
jurul juruñ ko yàlla moomu jurut kenn juru ko amul xamul dara lu niroo moom kenn rek la moom kenn rek la moo fi nekkoon ba fi dara newul moo fi nekkoon ba fi dara neexagul moo fi des bu yëpp demee moo fi desit bu lépp demee
kon ba léegi moom rek a fi nekk kon kay dëgg-dëgg ba léegi moom rek moo fi nekk
maa ngi xalaat toujours bàyyi ne mi ngi xalaat toujours
wéetaay wu rëy wi xale ñëw wéetaay wu rëy wii xale ñëw tëjëliyaat yëpp dayee bu tëjëlee lépp dee ba laaxiru rek des ba laaxiru rek des fi nag
yàlla daf fi nekkoon dara newul xam nga ne yàlla dafee newoon dara newu fi moom gannaaw ga mu def tëjëliyaat xel Muhammadiya am gannaaw mu def tëjëliya xaqiqatu muhammad ya dal di xam mbindeef yi jóge ci këyëb yonent mbindeef yi dal di bàyyi ko ci péeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu hadis yi dëggal na ko hadis xut si yàlla wax na yonent ne ko bu taxutoon ak yow binduma dara te loolu hadis bi dëggal na ko hadisu qudsi ja ndax yàlla wax na yonent bi ne ko su dogoon ko nag yow mii man yàlla binduma dara bind naa la ngir sama bopp bind naa ñi des ngir yow bind naa la yow ngir sama bopp man yàlla bind naa la ñi ci def ngir yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne julli ñi ci sama leer lañ bàyyi ko man nag ma ci leer ak yàlla wax na ne jullit ñi ci leeram lañ bàyyi ko moom mu bàyyi ko ci leer ak yàlla dafa am teggin yu mat rek moo tax mu ne jullit yi waaye lépp lépp la dafa am teg yéen ñu ma fekk waaye dëgg-dëgg li wax bi mooy ñëpp foofa lañ jógee
ñëpp jullit ak ku dul jullit ñëpp nag jullit bi ak ku dóor jullit ñëpp ci leer ak yàlla yonent bi lañ jóge ñëpp ngi jógee ci leer ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi jóge ci leer ak yàlla dëggal yonent bi nag jógee ci leer ak yàlla ga yëf yi am ba ne gàññi léegi yëf yi xam ba ne gàññ ñi ngeen koy gisee waaye li yëf yi bari bari benn googu rek lay wane waaye li yëf yëpp bari bari kat benn googa rek moom lay wane.
mbindeef yëpp soo leen seetee benn lañ mbindeef yëpp boo leen seetee kenn la ñu nit ki mooy nit ki rek ndax nit ki ku mu mën a doon nit ki rek la te nit ñëpp ñu nga bàyyi ko ci kenn nit ka te nit ñëpp ñu ngi baxee ko ci kenn nit ki
kenn nit kooku kenn mooy nit ñu bari ñi rek mooy nit ñi nag sama baay daana wax ne doomu ma du tekkiwu doomu ma du moom ma mu ne maam alaaji baayam daana wax ne doomama du tekki lu muy doomam la mooma du mooma du moomaam mais dañ ko yàq dañu mu mu ne ne dañ koo yàq nag naa doomu ma waaye du mooma la tekki mu ne doomama foo ko mën a fekk du moom laam loolu la tekki ñun ñëpp benn ñun ñëpp benn góor a ñu jur ñun ñëpp benn lañ jënd góor ñu jur mooy aadama muy aadama yàlla ne sàkk na ko ca melow boppam mi nga xam ne yàlla wax na ne mi ngi ko sakk ci meloo boppam la yi mu sàkk yëpp doomu aadama tax yàlla sàkk ko yim sakk yëpp doomu aadama tax yàlla sakk ko bu doomu aadama yi jeexee bu doomu aadama yi jeexee nag yàlla taxay suuf si taxay asamaan si yàlla taxay suuf taxay asamaan si jant dootu dox biddiw dootu dox jant dootu dox benn biddiw dootu dox dégg ko ci raamatu neer ak nawet guddeeg bëccëg xamatu nooral nawet dug si yii yëpp ñoo tax ñu def ko yii yëpp kat doomu aadama ya tax yàlla def ko suñu fi jógee yooyu yëpp jeex suñu fi jógee nag yëpp jeex ñu tox ci kër gi ñuy wax aljanna wala safara ñu toxu ci kër goo xam ne moom la ñu waxal janna mbaa safara si day jëm kër goo xam ne ñu ne dañ koy béel kër goo xam ne ku jotul dugg fa ngay béel dootoo jóg béel googu itam béel googu itam
dafay dem day dem di dem di dem ba mujj àgg ci asal rek ba mujj àgg nag ca asan asal moo ko- mooy abat rek asal nag foo ko dégg mooy abat bi yëf yi amagut bi yëf yi amagut yëpp amoon na ci xam-xam yàlla ci abat yëpp amoon na ci xam-xamam yàlla ca asal ci asal
bu yëpp jeexee itam bu yëpp jeexee ba ne tag yëpp dellooti ci xam-xam yàlla ci asal ñëpp delloo ci xam-xamam yàlla ci asal waaye man wóor na ma ne waaye nag bàyyi mii na ne moom wóor na ko ne jamono dana ñëw boo xam ne jamono dina ñëw boo xam ne laaxiru rek mooy def tajalli laaxiru rek mooy defar tëjil yi ndaw wéetaay bu boobaa ndaw weetaay nag su boobaa bu boobaa mu ne bu boobaa
boru bu tabe bi de buur bu tabe bii
te kenn dootu jëriñoo tabeem bi te kenn dootu jëriñu moom tabeem bi buur bu bale bi de buur bu man bilee bale buur bu suturaal bi buur bu bari bile sutura tey suturaal jikko yi ngeen xam ci yàlla yëpp jikko yu rafet yi ngeen xam ci yàlla yëpp léegi mi ngi am njëriñ ndax mi ngi am fu ñu ko feeñal léegi mi ngi am njëriñ ndax xam na fu mu ko feeñal ak ñu ko soxla buur buy xeewle biir buy xéewle daañ xeew lu yàgg ci aljana daanañ danañ xéewlu yàgg ci aljanna waaw suñ toogee ba tëjali tudd yi amatuñ fu ñu def tëjali suñ toolee nag ba tut yi xamatuñ fuñ def benn tëjal yi
wax dëgg wéetaay bu rëy la ah foofa day dëgg dëgg wéetaay bu réy la waaye yàlla jëkk waa nga nag yàlla yaa njëkk moo mujj yaa mucc moo feeñ moo nëbb yaa feeñ yaa nëbb nit moom rek fi nekk yàlla rek a fi nekk yonent ne yàlla nekkoon na fi dara newu fee moom yonent wax ne yàlla nekkoon na fi dara defu fi ak moom Sidina Ali yonent ne mooy buntab njëndil xam-xam Sidina Ali mi nga xam ne yonent wax na ne mooy buntab njiital xam-xam njëndil xam-xam njëndil xam-xam yàlla nekkoon ne li nekk léegi nag mooy mu ne li nekk léegi nag mooy la nekkoon rek mooy la nekkoon kat kon kon
waa ñu ne ñu fàttaliku yàlla nañuy fàttaliku yàlla li ñu waroon li ñu waroon mooy du ñu am benn soxla mooy du ñu am benn soxla lu mooy dëkk rek di fàttaliku yàlla daayiman bañ lu mooy dëkk di fàttaliku yàlla daay man bañ koo fàtte di ko topp daayiman bañ ko mooy di topp yàlla moomu daay man bañ koo mooy di ko sant daayiman di sant yàlla moomu daay man du ñu weddi xéewalam te duñ wetti mukk xéewalam
su fekkee càggan gaar na nag su fekkee nag càggan gaar na nag bañ soxlawoo yeneen bañ soxla woo yeneen nag ba dugg ci yeneen ba dugg ci yeneen waaye naa mi jamono ñëw fàttaliku delluwaat ci moom waaye kon nag nay xamee jamono ñu fàttaliku yàlla moomu delluwaat ci moom
de bu ñuy dellu si nag bu ñuy dellu si nag ñu ngi mel ni jaam bu dawoon di dellu si ci sangam ñi ngi mel ni jaam bu dawoon dellu si ci sangam di dellu si genn rëy du dellu see nag genn ak rii dellu si benn puukare du dellu see benn puukare day ñëw rek toxa torox fi kanam sangam day ñëw rek taxaw ci kanam sang bi torox fi kanamam toroxit ci kanamam ci maqaam boobu lañ nekk léegi ci maqaama boobu lañ nekk nag léegi
maa ngi leen di tatagal maa ngi leen di ndokkeel ci loolu bàyyi ne mi ngi leen di tatagal mi ngi leen di ndokkeel ci loolu bi ngeen xamee ne yéen jaami yàlla ngeen bi ngeen xamee ne yéen jaami yàlla ngeen sàkk ngeen bés muy bésu yàlla ngeen sàkk bés muy bésab yàlla ngeen ñëw ci yàlla ngeen ñëw ci yàlla ndax ñëw ngeen foo xam ne yàlla rek a tax ngeen ñëw ndax ñëw ngeen foo xam ne yàlla rek a tax ngeen dikk fii
dama ne mul koog malakoot ñoo jokkaloo bàyyi dafa war ne mul la koot ñoo jokkaloo
ku ne balaa ngaa jëflanteeg yàlla jëflanteeg yàlla ak jëmmam doo jëflanteeg yàlla ku ne bala ngaa jëflanteeg yàlla jëflanteeg yàlla ci jëmmam yow doo jëflanteeg yàlla mukk benn fiftin benn fiftin ku bëgg a jox yàlla ku ko bëgg a jox yàlla loxol nit nga koy teg ci loxol nit nga koy teg tegu ci loxol yàlla mu tegu ci loxol yàlla ne doo ko teg ci loxol kenn doo ko teg ci loxol yàlla mukk ku wax ne nag doo ko teg ci loxol kenn sa fiftin booba doo ko teg ci loxol yàlla mukk waaye mul koog malakoot a jokkoo waaye mul ko malakoot moo jokkoo loo joxe ngir yàlla ba nga ko tegee ci loxo ba nga ko teg loo joxe ngir yàlla bi nga ko tegee ci loxo bi nga ko teg tegu na ci loxol yàlla tegu na ci loxol yàlla